Makhtar Sylla euh, nekkaloon ñu foofu ci fi nga xam ne mooy Euh, ci euh, xabru Mawlana Cheikh al gis ngeen ko noonu kon bokk na ci karamaat yi nga xam ñu ngi ko doon wax léegi mi ngi doon daw soos nga xam ne mu ngi jógee Angleterre ñun démb am nañ chance sax fekk kër Seyda Nafisa Ibrahim euh, daal di mu nekk koo xam ne jàngalekat la fii ci Dakar ci benn institut macha allah ñu koy ñaanal yàlla yàlla jubal ko ci lislaam macha allah saxal ko ci yaa rabbi dégg nga wax ni kon daaw ñu waxee tam faydu faydu bi boole faydu xale yi la macha allah da nga gis ne même lislaam sax yéen salaay salaam bi muy bi muy taxawal islam ñu ko dimbale ñu bëri ay shabab lañ moo sabab boobu Mawlana Cheikh Sawa ne maanaam bopp bépp réew rek seen yaakaaram waaye li nga xam ne mooy léppam mu ngi aju ci ay ndawam ndaw yan mooy ndaw yi nga xam ne nii dañoo am xam-xam waaye am ay ité yi kawe te jub fa tabarakallah ci noonu ñu delluwaat ci plateau bi Oustaz Moustapha Diassé euh, kon danañ ñëw ci ay waxtaan yu am solo ci Mawlana Cheikh al Islam euh, bëgg nañ ci euh, li nga xam ne mooy murasadat Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahima Niass nga indi ñu ci lenn waaye itam da nga ñëw ci li nga xam ne mooy taw jihaad yooyu nga xam ne amoon nga loo ci junj waaye tam dañ la laaj ci mawlid nabawi bi nga xam ne ni euh, moom d'une manière général waaye xaasatan mawlid nabawi euh, Cherif Alfayni wa sabra ashara muy 2017 Oustaz Moustapha Dia si xam naa su ah, ñu bàyyi alhamdulilah sant yàlla beneen yoon suñu waxee almurasalaat ci arab mooy jokkoo yónnee lettre andi lettre yónni ndaw mu dem doxi dara bëkk ndaw wax ko sekkere mu dem waxi ko yooyu moom mooy murasalaat te mooy attawaasul mooy jokkoo te mooy doxal àdduna waaw mooy àdduna mooy doxal àdduna fi mu nekk nii pour ñu wax ci itteem te lu tuuti lañ ci mën a wax ci jokkoo foog nga def benn haykal benn plan boo xam ne daf lay wan kii ndax lii lu réyoon la ci moom wala lu tuuti la ci moom lu mu fonkoon la wala lu mu fonkutoon la lu mu waroon a fonk la wala waru koon a fonk masalan Cheikh Ibrahim mu nga juddoo ca ba yoon wu mag ba mu fa yeggeeg léegi matagut 10 ans amutoon yoon wu mag wu fa jëm ci li ma fif ci li ma jëm si nga téye ci loolu mu jógee fa faydum bi tàkkee Koosi ba fi mu ne yoon wu mag wu leer amagut fa te goudron bu baax a baax bu dem Koosi bu fa amee ba mu fa léegi matut juróomi faydum yàgg Mauritanie ca naare faydum yàgg Nigeria faydum yegg ba Makka faydum yegg ba foo àddina si foo àddina yam rek suuf am fayda yàgg na fa nga seet ni fi gën a sori ci naar yi dafa daan yebale ay doomam ñu jàngale ji ñu jàngi fi nga xam ne nii moom moo gën a sori dafa daan joxe ay ay doomam ñu fay nekk ay soxna te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne kullukum raain wa kullu raain mas'ulun an raayati yi yéen ñëpp ay sàmm ngeen te sàmm bu nekk yàlla dina la laaj caawa gam la joxoon noo ko doon sàmmee te nga xam ne moom duut koo xam ne kuy kuy fooye doomu aadama la wala mu di koy mu di koy suufeel tey doom yooyu nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew di jàngee doom yooyu nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew di fa def seen i sëy ak doomi taalibe yooyu nga xam ne ñu ngi ci bitim réew fu nekk ci àddina si te mu bugg a xam ci ñoom topp seen caaw ndax seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen yore sax ay taalibeem lañ ci caawam lañ bokk kooku mënta mënta suufeel almurasalaat communication dégg nga daa ngi may dégg bu baax waaw mhm. mu tasaare ay doomam mhm. ci jàng tasaare leen ci àddina si mhm. doomi taalibeem yi te yonent bi ne képp ku nekk ci yéen sàmm la sàmm bu nekk yàlla dina ko laaj nu mu yore woon ak caawam ña nga xam ne ñooy ñooy seeni i sëriñ wala ñooy seeni borom kër yëpp ay taalibam lañ kon ñëpp njobootam lañ mhm. ndax ku sa njoboot gi tasaaroo ci àddina si mhm. soxla nga communication wala soxla woo ko da nga koy soxla bu baax bu baax nga gis ne fu waaye waay mënta nekk def naag yow tawaasul zaahiran def naag yow tawaasul baatinan mhm. mudir tawaasul baatini bi ci laay njëkkee mudir nee na ma ñoom bañ nekkee keer mudir mooy Cheikh Mohamed Nazir doomam Ibrahim radiallahu anhu mm-hmm. nee mm-hmm. mm-hmm. ba ñu nekkee ker léeg-léeg nga jóg sax bugg a dem seetaani ab film cinéma booy dem ba ci yoon bu ñu lay xoo ne la hey dëppal te nga dégg xam ne baata baay la te ci jumaa yi baay laay nekk di wax nii bu ñu la nee dëppal da ngay xam ne kii baati baay la te mu ngi mel na di nelaw kooku mënuñ koo wéddi ndax wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba ci mustawan taban ba mu waxee benn baata Babacar moo ko fayu ne ko inna rabbaka kon loolu yàgg naa mën a am ci xeer yi ci ci xeex yi lislaam di am kenn ci saxaaba yi xeex na ba ñu ne ko làq wal ba tegul ci gannaaw xeer wi danga gis am ku ñëw ne yaa yaa yaa yaa muslim julit yaa yow julit bi kéefar ci suma gannaaw kii wax ak yow xeer nga tourné rey ko kon lool yàgg na di am te moom Cheikh Ibrahima waaj wax na ko tey léegi naa ko waxaat mooy mooy kenn koo xam ne njubam mbaaxam xam-xamam moo ko may mbooleem lettre bu mu bind génnee nañ ko nit ñi jàng ko ñu gis ko mhm. kon boog ñu gis ne lislaam lu mas a jublo lu mas a jublo ci Cheikh Ibrahim radiallahu anhu tànneef yàlla ci kaw suuf ndax bëriwut président wala ab ministre wala kilifa goo mën a wóolu ya mas a bind ñu mën koo ñu mën koo bind génnee ko def ko téere di ko jaay ci àdduna si kuy dox caaxaan wala ngay dox tapale wala ngay dox leneen mënoo ko téere boobu muy tudd jawaahiru rasaa'il yi mhm. jawaahiru rasaa'il boo génnee fii léegi laaj ko ñu wan la ko mhm. mbooleem lettre yi bàyyi bind mu am ay façon tawaasul nekkul ne topp topp njaboot gi rek la nit bind na ko laaj ko nangam loolu mooy ifta daf koy def ah, eh, mhm. nit bind na ko laaj ko xalaat daf koy def muy wasiya nit ñëw na def loo ko nangam ci xam-xam mu def ko mooy tatbiq loolu wasi loolu ci la bokk mhm. kon <coughs> mhm. bokk na ci seede yi ma xam ne mën naa la koo tegal ne la ku xamoon communication la te ku joxoon communication respect la am na aj mu aji dam benn benn <coughs> afan ngeen jégal ma am benn journaliste naar bu amoon xam-xam boo xam ne daanaka képp ku ñu wax ne danga nga war a taseeg moom da nga waajalaat sa bopp biñ ko waxee ne yow yaa war a dem seet Cheikh Ibrahim wax bàyyi ne ko moom dana fi ñëw waxtu sàngam daf ne marhaban bii na marhaban bii marhaban bii na ñëw dégg nga bi nga xamee naar bi ñëw na ci boppam gis nga Cheikh Ibrahim daf ne man taxaqaqa fi xaalin lam yaxlu minha xaadiruha man taxaqaqa fi xaalin lam yaxlu minha xaadiruha képp koo xam ne xaala ngi tàkk ci yow ki la jege mën nga koo maas xam naa rek euh, di wax ne rek Muxtaar euh, Sila waxtu woo xam ne rek am na euh, mën na bëgg na dugg rek am naa sunu gaay régie jëm ko dugal rek ñu xam li itam xew ci biti ndax itam ah, ñi ci biti am nañ ah, war na ñoo xam li ci biti ñu ngi noonu kon xabru baay bi ngi noonu macha allah nit ñaa ngi ziara ah, bu baax a baax gi ngeen sécurité bi ñoom ñu ngi def seen liggéey waaw Mokhtar Sylla ñu ngi lay nuyu di la ziar yaa ngi en direct 2STV waaw alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadaana ma kunna linahtadiya lawla an hadaana di sant yàlla di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Maolana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci teraanga gim ñu defal ndax moom moo ñu won yàlla moo tax ñu toppeeku nii te ku la won yàlla rek won na la dëgg te ku la won dëgg amuloo leneen loo mën a def mooy jàpp ci moom bëgg ko dëggu ci moom sopp ko looloo waral mbooloo mi yëpp ngay gis eh, li ci bëri bàyyi ko Dakar ñun ñëw pour ci Cheikh Ibrahim fii nii ci xabru bi mu nekk dolleeku ndax moom moo ñu wax ne ziara dolleeku la ziara mu ngi jógee ci ziyaada te mu ne ziyaada mooy dolleeku nag lii ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di gis itam li nga xam ne moom la waxoon di wax ne wa marratan a taraw na ajaban min faydi dal xan imaami nujaba ci téeréem boobu ñu wax majmuur ixlaat cheikh kon lii tey ku ko gis da xam ne bàyyi waxam du teggeeku du fett du teppeeku lépp lu wax rek nit ñi dañ ci teg seen bët ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla may ñu ñu fekkee ko ay at yu bari te mu ñu fekk ci jàmm te ñu tal ko <coughs> ñaan ñu nag mboolem jullit yëpp yàlla fay seen aajo ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke bu dégg Cheikh Mamour Insa Diop da nga wax bëgg bàyyi tey boo ñëwee ci xabru baay bi boo fi wàccee sax lan ngay bëgg di yëg waaw li may yëg de foor na trop fooraay boo xam ne sama làmmañ sax lott na ci wax ko waaw alhamdulilah kon kooku moo doon Cheikh Mamour Insa Diop mu ngi noonu moom lañu àndaloon noonu waaw kon mu ngi noonu ànd ak mbooloo mu waaw. may leen taxaw leen taxaw leen taxaw leen taxaw leen film film Euh, Cheikh Mamoud Diop euh, mi ngi noonu moom itam mu nekk muqaddam bu euh, mag macha allah di liggéey lu rëy ci li nga xam ne mooy tariqa bi rawatina faydu bi oustaz yaa ngi woon ci murasaraat yi ñu mottali incha allah. baax na alhamdulilah ñu ngi nuyu muqaddam Cheikh Mamoud Issa Diop ak mbooleem ñi nga xam ne moom ñu ngi nekk ci gàmmu bi ak fu waay mën a jógee ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay dalal ñu ngi lay tatagal ñooy wax ahlan wa sahlan marhaban jiital ci mboolem muqaddam yéene yi nga xam ne ñu ngi ànd ak seen taalibe yi rawatina ñi nga xam ne volonté rek lañ ñëwee am seen seen paas jóge fu sori karang-karang yi ñëw ñu ngi ndatagal waa Nigeria Niger Ghana Mauritanie Gambia ñu ngi ñaan yàlla képp koo xam ne ñëw nga ci gàmmu gi yàlla baal la say mboolee mi bàkkaar ñu ngi ñaan képp ku ñëw ci gàmmu gi yàlla faj say soxla ñu ngi ñaan képp koo xam ne nii bëgg nga Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu yàlla kawel la ba abadan te loolu sax am na ñu ngi doon wax ne man taxaqaqa fi xaalin lam yaxlu minha xaadiruha képp koo xam ne yaa ngi ci xaal ku la jege nga maas ko ca loolu lañ wax kon xaal nekk na xam ne ci ab aarif da nga ko ciy xam bu baax a baax mm-hmm. ndax léegi moom nga mën a fekk muy waxtaan di ree nga wan ko gannaaw mu commencé tuur ay rongoñ ndax am na lu muy dund lu nooyal xolam loo xam ne mënoo koo fekk ci téere mënuñ la koo expliquer doo mun lu may ñu teg la ci yoon wa jëfan ba nga yegg dama ne nag yegg googu dafa am ñoo xam ne sax dañu wax naan amut ak xam naa ak amut waaye bàyyi daf ne wusulu jamiul maasikina bi xabliya taxaqaqahu man lam yukadib bi rabbi yaay foo boo weddiwut yàlla rek war ngaa xam ne man ñi jàpp ci suma bu ngi dañu yegg ci yàlla yegg ak ñi ànd ak man ci yàlla ñi gëm yàlla rek ñoo ko mën a ñoo ko mën a gëm kon boog yow mi nga xam ne yaa ko def yaa mën a xam li sa morom ki nekk kon su fekkee ne yow def nga ko keneen deful ko xam nga ko keneen xamu ko bu bu lay bu lay contre ki nekk waa demal bàyyi wax na sax ba ne nit feebar dinay tax maq suuf neex ci moom te ku nekk xam nga ne suuf neexul dégg nga kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci jotaay bi te it ñu ngi fàttali ne ñu ngi ànd ak 2STV ci fii ci biir jumaay baay ci seen taxawu ak seen itte biñ am ak seen kilifa ci fexe ba Sénégal nekk nit réew mu développé wu ci xam-xam réew moo xam ne kumpaam deñ na ci yu bëri yoo xam ne nii daanuñ ko xam te war koo xam loolu mooy nit nite ndax nit xam-xam moo koy tax a nite xàmmee moo koy tax a nite man moo koy tax a nite ci kaw loolu nga xam ne Cheikh Ibrahim ñëwutoon pour wane boppam rek ñëwutoon pour wane boppam rek rek ga sax moo ca bokkul Cheikh Ibrahim dafa ñëwut pour wane boppam Cheikh Ibrahima dafa ñëw pour pour diine l'islam diine l'islam nag ku ko am fa nga mujj a jeexalee mooy jeexal sa bopp ci yàlla su loolu amagul rek sa lislaam pareegul aqidatun wa amalun wa xaqiqatun loolu moo fi nekk mhm. jërëjëf oustaz ci buñ paree ci monasalaat yoo xëy na am ñu bari ñu ci wax waaye xëy na temps bi mais bëggoon naa ñëw nga yaatal ñu tudd tuuti ci li nga xam ne orientation yi Mawlana Cheikh Islam yooyu tawjihaat yoo nga doon junj léegi nga ñu ci yaatal ñu si tuuti baax na suñ waxee taw ji mooy orienté orienté mooy lan mooy jubal jubbanti jubbanti nag dañ koy def lu dëng nga jubbanti ko walla lu loyox niki gune walla garab goo xam ne am na foo bugg mu jëm nga jëmale ko fa ba su amee doole noonu lay woowee moo tax nga dégg wolof ñu ne jubbanti bant ca tooyaay ga kon gune buñ koy jubbanti maanaam buñ koy yar di ko orienté ca ba muy nekk xale la loolu mooy tax ñu mën a yegg ci baati jubbanti boobu mooy lan mooy Cheikh Ibrahim nan lay tegee nit ci yoonu sharia wu jub ak Cheikh Ibrahim nan lay tegee nit ci maarifa ba du jaawale liñ bëgg ak liñ bëggut kon loolu dañu wax ne li muy wax fum koy teg ki puus te am yoon fu mu lay jubale ci ban falsafa lay dund ak yow yooyu Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu jaatam yi muy def yëpp mu ngi ko wéer ci alquran ak sunna mhm. képp <coughs> ak ngëmam gu dëgër ak may gi ko yàlla may dégg te mën a wax lim dégg ba mu leer mhm. am na koo xam ne am na xam-xam mën naa wax waaye waxam du leer am na koo xam ne am na xam-xam waaye mën ta wax am na koo xam ne xamut xam waaye mën naa wax waaye la muy wax boo ko toppee sànku <laughs> looloo bari léegi nag dégg <laughs> uh-huh. te mu ngi jàpp mu ngi déparé ci wa wax ak nit ñi ci al amru bil maaruf wa nahyu anil digle lu baax tere lu bon muy wareef ci bépp benn jullit bu ne mm-hmm. kon moom jaadu na ci xam-xamam ak kilifaam ak man-manam ak tolluwaayam mu war a taxaw mën a wax ak doomu aadama kon yeneen yi nga xam ne yëpp da koy dañuy askanoo ci Mawlana Cheikh Islam di ko def ci yéen yi danga bëgg a wax ne ñooñu ci seen yoonu bopp lañ nekk dama ne la Cheikh Tidiane waxoon mooy tontul baay lépp loo xam ne dégg nga Cheikh Ibrahima Niass wala nga ñu ne da dégg jëlañ leen lépp loo xam ne dégg nga ko ci seexu Tidiane mm. fa zinuhu bi misaani shari fa maa waafaqa fa xuduhu wa maa xaalafa fatrukuhu mu ne lépp loo xam ne dégg nga ko ci Cheikh Tidiane na nga ko natti ci mandaxam shariatu mhm. màndaxam mooy poids mhm. suñ la waxee dara peese ko ci mhm. loolu mooy kenn mënta xam waxi baay wala waxi shariatu waxi Cheikhu Tidiane te du na da am xam-xam kon yow gannaaw ko mënoo xam wax ji kon wala goo mën a def jëf ji mhm. li ngay def mooy déglu ki xam jëf nga nga topp ko mhm. moo tax bàyyi ci foofu noonu mu ñëw wan la ne la ida saara xayrul xalqi sirtu walaahu mhm. man damay nekk bu yonent bi teg tànk ma teg tànk waaye duwut ne daf dafay ne déedéet moom muy teg may teg wala li muy wax mu leer ma naññ ma def kon yow mi nga xam ne yow yaa ñëw ànd ak wala ànd ak yonent bi wala ànd ak Seexu Tijaan ndig da déglu da déglu ndigal xool jëf Mm-hmm. buñ la digalee nga def bu ñu defee nga nga roy ca dégg nga mm-hmm. al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar ñoo ne ñoo ne Cheikh Ibrahima xam na ne mm-hmm. jullit ñi benn jëmm lañ lu leer jullit ñi benn jëmm lañ loolu neex naa firi su fekkee lu baax laa bëggu lu baax nga bëggu lu bon laa bañ lu bon nga bañ ñoo war a tuddante ay doom ñoo war a ñoo war a aarante ñoo war a dimbalante ñoo bokk jàkka ji ñoo bokk alquran ji ñoo bokk benn xibla bu ñu jëm lu ñu wutale ma ak yow. dara kon suñu wutee am na leneen loo bëggul wuteeg li nga waroon a buggu mhm. kon booba génn nga ca. kon moom na gannaaw li la yonent bi doon wax te moom la war a wax te mbooloo yonent bi moo war a am kon kooku sañ naa taxaw yëngatu ci buntam amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Mhm, mhm. dégg nga mu ne. nuqallidu taaha al-haashimi wa nunaffidhu awaamirahu fil kawni wal kawnu nunqidhu mu ne ñun yonent bi la roy li wax moom la ñu def mhm. waaye man damaa ñëw pour suqali àdduna ci toroxaanu ginnaaw aw jëri nii rabbi li jabril kasri mhm. damaa fekk àdduna damm yàlla indi ma pour ma jànku mhm. kon mooy jànkat bi dégg nga ne ñu waa yaatal ci taw jihaad yooyu nga gis ne waxoon naa la bu njëkk ne la taw jihaad am mala am ak taw jihaad manhajiya am na waxam joo xam ne ñëpp koy dégg. am wax joo xam ne ñenn léegi euh, da nga bëgg manhajiya boobu noonu génnul ci euh, manhaj yi maanaam manhaju Cheikh Ibrahim euh, mën nga ma ko tekkil manhaju Cheikh Ibrahim. ok xam nga suñu waxee manhaj mooy méthode. méthode waaw. Hmm. léegi yow ni nga xamee ne noonu ngay mën a joxe xam-xam nit am na hmm. yoon. Hmm. kii ni muy waxee am na yoon waaye manhaj bi biñ teg fi manhaj yeeg kalima istiaara la dañ koo àbb pour lan. pour wan la ne li nga xam ne moom mooy maarifa mhm. nekk faydu mhm. nekkut loo xam ne mhm. nu la neex doxee ca dañ lay teg ci yoon bi di la biral nga dem ba ba ngay mën a nekkee muqaddam nga nekk muqaddam tuur na kay kon li ngay rek respecté code de la route jeex na <laughs> man xam nga boo xoolee sax mën nañ ko delle ko odo ila sabili rabbika na koo xam ne tey rek ne nag da ngay nekk julli par force loolu dañ ko weesu jamono ji comme niñ koy gisee ci terroriste ak yooyu xam nga. Mhm. suñ ne waxtaan am ma. Mhm. gis nga doomu aadama xëyul rek yàlla def ko muy togg ko jëf ne xëy mu nekk mu kalaf. Mhm. dangay dund ba dix huit ans wala nga am benn kawar gu sax ci yow koo xam ne ba ngay juddu saxaatu sax sax sax eh, saxut. boo demee ba gis sa kawar goo xam ne ba ngay juddu àndoo ak moom. mu kalaf nga. su fekkee ne loolu amul nga am fukki at ak juróom-ñetti mu kalaf nga. Hmm. diir boobu nga doon dund yëpp yàlla tegul la ci benn coono. Hmm. santul la dara. waaye loo def si lu baax ñu ñu dencal la ko. waaw loolu ci ci mbaaxam gi la. <laughs> ndeysaan la yoon mooy doo xoor. Uh-huh. doo julli. Uh-huh. waaye nag xoor ga ak ga xam na ku ko war a def ci yow. Hmm. mooy say waajur. Uh-huh. yonent bi ne muruhum bihaa li sab'in. wadribuhum su gën a gaamee juróom-ñaari at ko commencé di di waxal. ni ñu jullee. Mhm. di ko ci dugal di ko ci forcer. soo amee fukki at nag commencé di ko ci dóor. waaw kon ana ñu ne dóor bokkul fan lañ jëm. <laughs> muruhum biha mhm. li ashrin. Mm. wadribuhum biha yaani bi salaa. Mhm. fi ashrin yaani fi ashri sanawaat. ida balagal waladu sab'a sanawaat wala mu yusalli. yujbar. wa ida balaga sanawaat wala mu yusalli. yudrab yudrab. <laughs> soo amee juróom-ñaari at nanguta julli. dañ ko koy digal di ko puus di ko kii di ko xas di ko di ko mhm. bu demee ba am fukki at nag nanguta julli fa ngay fàq xeet da jëflante ak moom mhm. dégg nga mhm. waaw kon ci taw ji jihaad yi waaw waaw macha allah digg boobu ci yow mooy bi nga xamee ne am nga fukki at ak juróom-ñett commencé di jaamu yàlla di xoor di sell gis nga yonent bi sallallahu alayhi nee na képp koo xam ne sellal nga yàlla ñeen fukki fan yàlla jox la xam-xam boo xamutoon loolu mooy buntu buntu ubbeeku faydu ci yow mm-hmm. la ca des nag mooy mm-hmm. wasbir nafsaka maa alladina yad'uuna rabbahum mm-hmm. bilgadaati wal ashiyi yuriduuna wajahu wala taadu aynaaka anhum turidu zinata alxayaati dunya wala tuti man axfalna qalbahu an dikrina wattaba hawa wa kaana amruhu furuta macha allah oustaz Diassé xam naa dinañ ñëw ci euh, li nga xam ne moom la ñuy tëjee euh, ci euh, ci jotaay bi maag yow Euh, ci sa xalaat ci malo na Nabi laataa loolu bu fekkee régie matas la jàppali na rek ñu xool fan la nekk comme ni ñu ko waxee woon sànq rek ñi ci biti itam euh, am nañ ci solo motaasi la bu fekkee euh, yemu na rek incha allah régi ñu ñu ñu ànd ak moom ba léegi rek yéen a ngi ànd ak 2STV fii ci Medina Baye ñu ngi fii ci ginnaaw fii ci biir jumaa ji ni ngeen ko gisee ni mbooloo maa ngi teew macha allah soo génnee si biti itam macha allah ni ñu koy gis léegi ci image yi ci biti dëkk baa ngi fees del ak ay nit macha allah ñoo ñëpp ñooñ fi lenn lu dul yàlla rek lañ fi wut si te defe naa fekk yàlla moom mu ngi fépp waaye fii dañ fi fekk lañ fi wut si macha allah kon ñu ngi ñaan yàlla ñëpp rek Euh, képp ko xam ne aajo boo ñëwee rek yal na ko yàlla faj boo fi indee bàkkaar yal na ko yàlla far macha allah waaye tam ñu doxee fi rek yàlla defal alamu islam yi lépp jàmm ak xéwal ba nga xam ne nii lépp lu ñu ngi koy dund jamono ji ci wàllu métit ñu ñu ñu mën cee génn allah si kanam tuuti itam dañ dugal benn si zikarkat boo xam ne itam pour lan pour mën a euh, tooyal xol yi tuuti waaye loolu euh, après bu ñu paree ci oustaz Diasera bu mel ne Maxtaar jàppandi kon oustaz day ñëw rek ci sa xalaat ci wàllu gàmmu wàllu gàmmu yow noo gisee gàmmu lan ci xalaat ci gàmmu. waaw ñu sant yàlla oustaz moom. waaw amut gis-gis Muxtaar. la muy am mooy li nga xam ne jot nga ko faraatu ci as xam-xam ci leerlu loo dajet mu doy la ci yi lay yi ñuy teg ci gàmmoo war na wala warul man de bàyyi mooy suma sëriñ moom laa te dañoo gëm ñun jullit ñi mboolem jullit ñi ak fu jullit mën a nekk gëm nga ne lépp lu alquran wax dañ ko war a def tere dañ ko war a ba te moom moo ne wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nuthabbitu bihi fuadak waaw oustaz mel ni ñu dem seeti Mokhtar Mokhtar dafa mel ni Mokhtar ngi noonu Medina Baye ngi noonu gis ngeen jumaa jaa ngi noonu image bu rafet macha allah euh, kon Makhtar Sylla nekk ñu ci biir waaye waa régie tam ñu ngi leen baax seen maa ngi ful baa ngi noonu liggéey bi yombut yombut sur le moo tax a jox cër war nañ leen gën a respecté su ne journaliste yi nag caméraman yeeg ñëpp ngi ci biir bindkat yeeg ñëpp ngi ci biir macha allah lu am solo la ñuy def parce que jamono ji am na ko xam ne ma nga tëdd ca saalam mënta ñëw feebar na wala boog mu nekk ci ay yite ma nga toog di seetaan kon ñoom war nañ leen yombalal seen liggéey surtout sécurité bi nga xam ne itam wax dëgg yàlla nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg ngir lan ngir sécuriser doomu aadama yi nga xam ne ñooy ñëw ziare te seen ziare defuñ ko lu dul yàlla yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne barke yooyu noonu ki nga xam ne mooy nafa xaal yooyu noonu yal na yàlla wàcc ko ci kaw senegal waaye yokk ci kaw euh, mboolem jullit fu waaye mën a nekk ci àdduna bi incha allah ba alamu islam mën a nekkaat benn islam mën a delluwaat fa mu nekkoon nga xam ne. sang bi moo Mawlana Cheikh Islam Aboubacar am loolu la masiré xam naa kon rek euh, dañuy dellu si waat ci plateau bi rek euh, oustaz Moustapha Diassé euh, yow sa gis-gis ci gàmmu Medina Baye 2017. ñu ngi doon wax ci tomb boo xam ne dañ ko doon yeggali. mooy nit ki dana juddu ba am. ak biir ñu soog koo togg jëf muy mu kalaf. nee la nit dana yàgg ci lislaam ba ci yàgg mu door a mën a jot ay may ci lislaam soo demee nag ba war a jot may yooyu noonu la la alxuraan wax ne wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum bil galaati wal ashiyi yuriduuna wajhahu booleel sa bopp ci ñi nga xam ne ñu ngi gàddu seen kurus di tudd yàlla suba ak ngoon waaye bu leen wan gannaaw soo leen wanee gannaaw foo jëm turidu zinata xayaati dunia taarabaat na rek nga wuti ndax ñaar moo fi nekk ci yàlla wala waaw Mokhtar ñu jëli Mokhtar ñu jégalu jëli Mokhtar Mokhtar Sylla ah, waaw waaw aca kon mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu ah, gis ngeen image yi noonu rafet na trop kilifa yaa ngi noonu di génn mu ngi noonu di génn macha allah kon waa Shababul waa Shababul Fayda itam ñu ngi leen di jaajëfal bu bàyyi mbay bu baax a baax Baye Mokhtar Baye ka ndeysaan ak ah, ca dokk ba ndeysaan kooku nga xam ne nii dafa bëgg Mawlana Cheikh al Islam ba jeex tàkk nga xam ne tey moom jëmmam lépp yàlla la macha allah ak ay jëfam ni ñu koy waxee rek macha allah Baye Makhtar ngi noonu yaa na ko yàlla yokk xéewal yàlla yàggal ko fi parce que itam moom it liggéeyam ci tariqa bi liggéeyam ci faydu bi kenn wéranteetu ko Baye Makhtar Ka mi ngi noonu ñu koy jaare baax a baax waaye di jaare boole muqaddam moom nag wax dëgg yàlla saa defe naa Baye Makhtar bëggam ci Baye rek li ñuy wax ci bëgg yonent bi salaay waaye moom bëggam ci bàyyi kenn mënu ko natable Sadio Baye Makhtar Kane waaw Baye Makhtar waaw Baye xam naa micro mu ne waaw Baye Makhtar Kane kon moom kër euh, mhm. macha allah waaw waaw kon euh, kon nag euh, xam naa mi kon euh, li nga xam ne mooy Medina Baye taaru Medina baay kon jërëjëf jërëjëf Oustaz ñu ñëw rek ci taw jihaad yooyu nga doon wax rek rapidement ñu mën a dugg ci sa gis-gis ci Mawlid 2017 bi ñu daal di dugal Cheikh Mouhamed Ndaw suñu soppee duggee ba Ndoukoumane macha allah ñëpp xam ko mën a zikkar lool yàlla na ko yàlla lafal cat incha allah dinañ fi ñëw xam naa sax dana ma ñamalaal ak Alaaji Abdoulaye Muntaxa bi ñu ngi ko mayoon dana ma ko ñamalaatal incha allah Oustaz waaw mu ne la léegi su fekkee ne dem na ba nga xam ne dugg na ci lislaam loo dugg te doo am avancement amul bu ci demee di avancé war a jot ay maye yàlla yi ci la war a seet cheykhan kaamilan a ah, kaamilal irfaani murabbiyan kon mu ànd ak moom mu ne la wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bil ghadati wa ashi yuriduna wajhahu maa waxoon la léegi ne la nit ñaar rek benn nga dund ci àddina di wut àddina mhm. wala nga dund ci àddina soxlaw yàlla dëgg la di julli di xoor nag terewut nga soxlaw àddina waaye am na koo xam ne jullim nga ak xooram nga yëpp nam fam teg àddina tegu fa leneen waaye am na mhm. koo xam ne nag jullim nga xooram nga yaakaaru ko sax ci kanam yàlla waaye nga wax na bi saw mi lam athiq bi xaaji wa saw mi kada li may defal yàlla yëpp lu loolu laa yaakaar ndax lu tax wareef la maa ngi koy def waaye dund na li nga xam ne moom mooy maarifatu mm. jeex ci yàlla jeex goo xam ne wér na ko ne macha allah kaana wa maalam incha allah nekkul li soob yàlla mooy nekk lu soobul du nekk nga su ko defee yittewoo yàlla ndax yàlla rek lañ war a yittewoo ndax yàlla moom léegi nga kii euh, bàyyi seenu mu ne yàlla moom faalun li maa lu ko neex mu def kon defal li la war. coobar yàlla waaye nga xam coobar yàlla nga ñu. ñaan yàlla wér. su ko defee bu ñu waree ñëw ci suñu gis-gis ci kàmm 2017 dañuy fàttaliku benn waaj waaju journaliste bi ma la wax nii dafa waxoon bàyyi ne ndax yow Cheikh Ibrahima xam nga waaw euh, ba léegi rek euh, ñu ngi noonu Baye Matar mu ngi noonu ci moo Mawlana Cheikh al Islam mu ngi noonu dugg na ci fi nga xam ne mooy rawda bi ndeysaan joxe moom it ziaram joxe ziaram Sass Diassé waaw Mokhtar kañ nekk comme li nga doon wax léegi rek yaa xam loo xam ci moom. waaw xam nañ ne mbaax rek la waaye nga dolli ñu. waaw kenn la koo xam ne borom xam-xam la. ndeysaan géeju ci sariyaatu géeju ci xam-xam géeju ci luxal arabiya ak paj xam-xam yi faj doomu aadama bu feebar. maa la nekk na mbir na fii ay jamono. Mm. nekk na lew na ay jamono daan ànd ak suma sëriñ Cheikh Mouhamad. Niass ibnu Cheikh Tidiane Alhamdulilah ibnu Alhaji Abdoulaye. Hmm. muy Baye moo Niass Baye Modou Niass koy ziar bu baax. Hmm. su ma ko tuddee nag naa taxaw tuuti nuyu ko. Hmm. ndax dama ne woon. ca tàmbali ba dana am ñoo xam ne danañ tardé. waaye ca mujjantal ga. ñëpp danañ ñi la xam danañ la seet. su boobaa naa ko yónnee nuyoo ñaara ko ndax gis nga. doomu adama am na ñu la formé. dimbale la ñooñu xamoo seen fay dëgg la waaye am na ñoo xam ne gannaaw boo gisatul waajur gisatoo sëriñ gisoo kenn may ñoom ñoom la yàlla def ñuy sa waajur ñooy sëñ moo tax continuité moo nekk ci àdduna si moom moom wéeleel suma ma suma ma hum muhimma bi nga xam ne suma baay moo ko doon def ci man moo ko def ci man suma sëriñ moo ko doon def ci man moo koy def ci man muhimma bi nekkutoon lu dul xam-xam ak njub xam-xam ak njub ak dimbale la ci àdduna si mm-hmm. sampale la kër jàppale la gis nga nit ki taxawal ko yomb na mm-hmm. waaye mu bugg a daanu nga téewaat mm-hmm. ko mu bugg a daanu nga téewaat ko mu bugg a daanu nga doole ko ne ko fii nga yow mm-hmm. loolu yomb kii nag moom nekk na koo xam ne kenn la ci kenn la ci bàyyi ndax ay jaar-jaaram bëri na nit ñi xam ko te sikar sa sikar su xumb sa sikar su teey sa dama ci ba yegg ci e, yàlla e, xam may yi bëri daal nga xam ne laa tuaddu wala laa tuaddu wala maa dalika wajjaha kama wujjiha wa mu wajjihu mu wajjahuuna fil arab ah. uh-huh. defar nañ ko mu defaru te ñam defar ñu ngi defaree foofu nit mënu faa passé ci wax koy Baye Makhtar waaw ah ñu koy ñaan rek xanaa yàlla fanu gudd ak wér gu yaram macha allah mu ngi noonu Cheikh Baye Makhtar Ka nekk fële ca diwaanu Dakar waaye ni ñu ko waxee fii itam uh, mu ngi dem fu ne Amérique gis nañ ñu dimbalee doomu aadama yi ñu dugg ci li nga xam ne mooy tariqa bi waaye faydu bi tabarakallah loolu lépp comme ni nga ko waxee rek ñoom affaire bi silsila la faydu bi nga doon wax rek ne mbir maa ngi noonu warta yem bu fekkee da ngaa yem mbir mi doo euh, yem ci yow daanaka mun naa ne yow mën nañ ne jëriñoo ko waaye mbir bi buñ la ko joxee euh, da nga koy nam def ba yegg si yow defal noonu ba mu yegg si ci keneen tabaarakallaa kon moom bokk na ci ñooñu euh, am saaluhum wax laay bëri nañ trop bëri nañ trop loolu lépp nag mooy Mawlana Cheikh Islam bi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu ko kenn mënu ko waaw macha allah kon oustaz ñu continuer rek mawlid bi. 2017. Mhm. Euh, waaw laataa ñuy tàggatoo dugal Mouhamed Ndao. mawlid 2017. dama ne la bàyyi am na journaliste boo xam ne mooy Abdoul Karim boobu moo seetoon ca moom moom lañ yebaloon ci moom. audio bi ñu ngi ko yor ci Baye FM. macha allah ñu ngi ko ko yebal ci mu fekk ko ca hôtel ba. ba mu ñëwee daf ne ko bokk na ca lam mu wax waaye ji mu fekkoon dañu am joti wax la wax la seen seen seen an seen seen waxtaan dafa doon nekk lu yéeme waaye dafa laaj bàyyi ne ko ndax xam nga yow ñaata nit ñoo dugg ci lislaam ndëg yow sa soppe yi ak sa taalibe yi ñaata lañ ci àdduna si bàyyi ne ko man xawuma ma ko te bugguma koo xam te jéemuma koo xam lu tax ndeg ñaari mbir dégg nga mu ñaata taalibe nga am ci àdduna si wala ñaata nit ñoo dugg ci lislaam ndëg yow bàyyi ne ko man xaw bugguma koo xam. jéemuma koy xam. dëgg la ndeg la par lu mu ci lu mu bañ foofu. ok du lu mu bañ waaye lay lay dëgg mooy lan nee na ko man duuma borom parti di natt suma bopp ba xam ñaata carte ñoom wote ëllëg. Hmm, wala ñaata militant laa am. ñaata militant duuma kiit koo xam ne dama woote ab tariqa di seet ñu ci dugg ñu ci génn damay liggéeyal yàlla rek képp ku dugg ci diine ak foo man ci duggee ak bunt boo ci duggee rek man nangu naa. kon képp ku dugg ci diine ci suma loxo nga dugg. wala suma ma la xool morom mooy ci su ma la xool ma macha allah comme la ma waxoon rek bët bi may xool doomu aadama kenn du ko xool doomu aadama nga jubal moom mu jubal wala yow nga def wala moom mu def yëpp benn ci moom xam nga génn naa fi léegi bi ñu ñëw maag yow mu ngi am fu ma jëm diggante bi nga daan dox cinq minutes hmm. dem tey quarante minutes mënoo koo cee dox dëgg la lu tax hmm. mbooloo embouteillage boo xam ne du waay oto kese du waay oto de hmm. xam nga mu njëkk dañu doon wax jaaykat yi nangam nangam te fayuñ ci kenn te ci passage ki nga xam ne moom mooy kilifa ak dëkk bi nga xam ne moo orienté noonu ñu ngi ko ciy gërëm ñu ngi koy sant waaye war na ñëw bi nag yeneen bunt yoo xam ne dana tax dugub bi yomb dugub bi jafe na lool lool ba jéggi daal ñëw ci moole bi danañ ñëw sax ci plateau guddi gi incha allah direct bi dinañ ñëw ci li nga xam ne mooy euh, waxtaan ñu indi ci lu bari xam naa rek boo amoon fooy tëjee rek euh, tëj rek ñu daan day yitte yi bëri na ñu ngi sant yàlla mhm. ñu ngi sant yàlla di ko gërëm mhm. wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith mhm. toog ci jumaay baay ji wax nit ñi déglu la du ndam du dara natt la xéewal la ci kaw doomu aadama ji gu la yàlla sotti mhm. su fekkee la ngay wax njub la dem na ci yoon loolu la bu dul loolu it mhm. yàllaa ngi wane koo xam ne nii ku doy waar la ku nit ñi war a ñaanal mu jub mhm. parce que dugg ci jumaay baay jëlee fi leneen lu ma xéewal mënta nekk loolu rek mën a nekk ñu ngi ñaanal yàlla xalifa gi nga xam ne moom mooy boppi taalibe yi yàlla may ko wér ak mbooleem doomi bàyyi ñu ngi nuyu mbooleem doomi bàyyi ñu ngi nuyu mbooleem taalibe yi ñu ngi nuyu mbooleem sët yi mm-hmm. képp koo xam ne ñëw nga ci gàmm gi mm-hmm. ñu ngi lay dalal ñu ngi ñaan yàlla mu fajal ñu suñu aajo yi jafe-jafe yi àddina yi di dund yàlla nañu ci yàlla musal dañu ci dégg doy ñuy sant 2STV ak mbooleem rajo ak télévision boo xam ne yaa ngi ci gàmm gi te ndax ñoom ñëpp di leen tax a jóg wax naa ko ci gannaaw mooy yee àddina si yee doomu aadama yee sénégalais bu nekk nit ñu war a doon ndax bàyyi na jàngal leen nit ñi ndax ñu nekk nit daf nit ñi nit ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla ñu fekkee ko at yu bëri amiin ko yàlla nangu amiin mu yëpp ndax yenn yi tamit li tax nit am ko mooy am na loolu bu loolu laa biir na ci yow ñu nekk sant ñu ngi ci gërëm asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi sa barakaatuhu Oustaz euh, Moustapha Diassé ñu koy jaajëfal baax mu nekk jàngalekat euh, arab waaye itam di nekk yarkat nekk murabbi nekk daay macha allah euh, ñu koy jaajëfal lu baax a baax ci li nga xam ne mooy disponibilité bi nga xam ne may nañu ko ci li nga xam ne mooy temps wax dëgg gis nañ ne temps yombut temps gis nañ ne temps yombut macha allah. Euh, macha allah gis nañ ne temps yombut kon mu may ñu ko kon ñu ko jaajëfal bu baax a baax a baax leen wax na rek yéen a ngi seetaan ba léegi seen euh, télévision préférée di 2STV macha allah ñu ngi ziar ak nekk fi nga xam ne mooy Ndakaaru Ndiaye di leen baax a baax baax di ziar ñi nga xam ñoo nekk Ndar partout au Sénégal ñu ngi leen ziar waaye partout euh, dans le monde allah kon baay Matar Ka ba léegi mu ngi noonu di ci xabru bi di waaj génn macha allah ñu koy ziar baax a baax a xam naa rek ci noonu rek la ñuy dugalee Mouhamed ndaw question de temps Mouhamed Ndao maa ngi lay ziara sama xarit sama soppe waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Mouhamed maa ngi lay ziara ziara mboolem waa dëkk bi di jiite xalifa bi ak imam bi ziara mbokki jullit yi xaasatan pour Soxna Mat Tijaan xaasatan kol Mawlana Cheikh Islam Alaaji Ibrahima Niass di leen ndokkeel ci yoru yum ci Yàlla Mouhamed bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu nangul ñu suñ gàmmu te fulal ñu ko ci barki baay amiin yaa rabbi Mouhamed na namoon naa la walaay mu niir maa la gisati waaye xam ne lépp rek nga xam waa Ndukimaan xam naa jamono ji ñu ngi seetaan macha allah waa Ndukimaan Baye Wilane ñu waa 2STV waxtaan ak moom solo waaw Cheikh Abdou Barhama <laughs> mm, Cheikh Alhaji Saloum Ibrahim sama xarit sama soppe maa ngi koy ziar lu bëree Euh, Mouhamed Ndao ngeen ñëw gàmm gi tey euh, te yéen xam nañ ku wax gàmm wax zikar hmm. macha allah tey hmm. euh, nan ngeen fas yéene ngir jaamu yàlla yi ci wayu bees yi demee noonu maa ngi ko bàyyee suma sëriñ sama mag sama xarit Cheikh Ibrahima Ndao hmm. nga xam ne moo nekk njiital mboolem tuddikat yàlla yi xam naa moom moo leen di dugal ci tànt bi incha allah ñun dañu ñëw pour barkeelu fii rek bismillah macha allah kon dañuy bàyyi rek tuuti rek nga ñamal ñu tuuti ginnaaw bi ñu dégloo waxtaan yi حير العقول بإرحاص للمصطفى جسيل نوالي مرحبا كل مرحب بالمقفى مرحبا بجود سقيم تالي وهنيئا أيضا لبنت لوهب أنجبت بالقتام صافي سلالي سبقت في الفقار كل فتاة an jabat bi durril yatimil kaali bayna wa abatuhu moradi on qulna liyut mi ayun min yusri bi durril aali bayna arda hatu fatatu sadin lisadin saedat bil aysi qadidi taali bayna bi atanin بطيئة قد أتت ثم رات سباقة للجمال بين أصبحت ساقها جياء سماء ثم رات بهمس ساق الآلي بركات نبي أرقت عليها فقد قصب فادئ إنهالي بين الرب بالموس تفا جواد فدارك حيث تنأق barat watalkibani bayna rabbi bil mus tafa oto fi fa apli junnatan an sakmileda aktali bayna sakka jibrilu sadrowo fi daul sadri minhu abamaha anjali bayna sakkahu summa sakkahu summa aidan بدأ سيل سقو بانتقالي وهو بهر الهرفان سقى على الأرض ولكن أمو فأم في دلالي صلى الله عليه وسلم طريق شيخ yaa koy dundal te boole kook sunna rësool ndax sëy xi baay yaa ko saxal bay jog taxaw di bay sa tool barahaama jog dëm ba kënu fay doy konom gi taxal kënu te moom kënum duray gune moo tax gune bàyyi raw jinne fay dum bi dem na ba gine bàyyi ñas tukkim ñi gis ngeen lim wane huuti huutoon xaalis ma ne fay dum na doon yóbbu fu ne moo tax ñëpp teew si ne ma dina bàyyi tey bàyyi ñas gi ne bàyyi tukkin ñi gis ngeen li mu wane ma ne huuti hutoon xaalis ma ne foy la doon yóbbu fu ne ñas jas na li gaa yi jihoon ñoom mbiri dunyaa lañ fi jihoon foy dum bi na yi fi jakkoon comme ni jannatul haddanaan makka ka woon ak faas ka woon moo ñuy xamal ñëw ak kahoon ak gaa yohoon hande kahoon marina niroggo hon mama abdalayi mamam wiya on so ko lime ñoy addanan limo woral ahmad tidiane faye ko feydum haddanan kolal afrique europe ak asiya mayonore ak hawsaya ak tukkulore ak nar gadde feydum bodda fay gandiya mane kuy conférence nasiyati baye ñas kuy conférence nasiyati baye institut islam di mode baye ñas billahi baay mooy ki tax xam du jooy moo yore mbotudut ko jaay ana gumba yi xammaa dem leen tay ba yen ñu tay ba leen ngeen gis la woon maam abdalahi ñes lam tayoon tey nee na fànga fàngaaral daw si leen tay ba xaraab yee ko tuddoon ndekee lu xaab wolof la woon mbuut lañ tayoon huboon ko fa baay ñes juddoo tay ba ñeseen yéen ñëpp wax leen baay ñes say ku lislaam ci say ku lislaam ci dar bu ñuul sekul islam ci der bu ñuul waa ijaas hiimu nañ ci baay mu nda añ ceebi yëpp naan yaa abal basar moo de waaji suul ker du tee feeñ waaji suul bale na xañaan ku jàmmu jik moo de topp baay nit ña weex tàlla ñaŋ fa ndem sirif yaa de rang fa baay ndem sirif yaa de baay yow mi ñuul boo bañee du saf yow mi boo bañee du saf yokku ñuulal la lay andil laa jokku ji leer ga mang fa fii la coow li xem fii ci la coow li xem hek wa bàyyi nga dawaani sër het wa bàyyi ngadda waani sér rus na koy ngadda gaayi fii waay borom kersa gaade baay macha allah macha allah Mouhamed Ndao Mouhamed Ndao dana ñëwaat ba léegi gis nga booba léegi euh, affaire baa ngi ne selaw gaa yi ngi déglu mooy li ma wax rek ñu ngi doon déglu parce que lañ wax ci wàllu xam-xam ñëw nañ ci li wàllu zikar yi nag macha allah nga yëngal li nga xam ne moo xoli waaye duñ duñ yem foofu de da ngay dolliwaat gars yi ñu dolli wala ñu arrêté Mouhamed Ndaw dollil bàyyi nuuru ñas la woy moo de xaw su diina bi tey wallahi dama ne bàyyi nuuru ñas la de woy moo dama ne lambu naa ci gox yi ne ñu panaan ma yaa jërëwëy waaw waaw miir nga kenn du la gerte yaa ngi doon bëgg waw wallaay dama ne géew bi yaana lambu ji tey ko am sa ba ko jay ah. wallaay dama ni géew bi yaa na lam bu yu ndaw yi duñ bëre tey sama mbar naa junjung yéene tuutaayu nguuru gi kenn la kuku kan kuku kana kilee kan kana bay ñas moo mbër ci diina ji tey dama ne nuuru ñas li am doomi soxna dootu ko xam ma ne leen maa bëggoon mel ni ki baay ñoo mel ni ki waaju mel ni du fi xam waaju mel ni du fi xam waaju mel ni du fi xam waaju mel ni du fi xam waaju mel ni du fi xam ku nuyoo mu dal fay loo ko ñaan mu dal may dama ne tool bi yaa na man ma am ci sasa ko bay mana leen saa su nekk rek xalifa rakam na ku yéegal ci kaaba yàlla gi ñaanal wurus seexa ma ko wax seexa wax na ko wax kum doyut lu lay war a doy wallaay dama ne soo xamoon la xut ba ba wax doo taxaw ba wérérér léegi dama ay defin la ñuy nawee nit loo bëggoon dal dala wees dama ne bismillah di may wëy ki raw ci diina ji taajul xaari fii na laahu bur bi mooy ki la dama ne képp kuy jiwel wala ngay jot di jéem a taalif wëy kay ma wëy la fi raw sanga ngi moo jërë wëy dama ne lambi diina sàjjatina déglu leen ma bàkkati mbër fay nooru ñas lay wëy moo di mbër ci diina ji tey seex baay laahu buru daggal na la dékoore sayit orong dana lay dama ne tey ma dellu wax ci lu rëy ci wolof bagaa